dal leen jàmm saay su ne ci seen émission avenir santé tey seen émission avenir santé premier numéro bi ñuy waxtaanee lu jëm ci ñaari légumes muy euh, basante ak choupame la ñuy fas yéene waxtaane euh, di wax ne li ñuy fas yéene waxtaane doon na loo xam ne njëriñ kepp la waaye nekkete ñu bëri xamuñu ko woon amul lu mu mënu fajalul doomu aadama loolee di basante nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te soxna yi di ko faral di jëfandikoo te léeg-léeg niñ koy jëfandikoo sax daanaka vitamine dootu si nekkati da nga koy lekk noonu pour la forme gis ngeen euh, ku si nekk légumes yi nga xamante ne ñu ngi leen koy baaxi seen émission avenir santé nañ la koy tegtalee buñ ko doon jëfandikoo noonee kon ñu bëri duñu dem tëdd si lal hôpital ya nañ si bàyyi xel lu am solo la kon basante lañuy def suñu première partie seen émission venir santé incha allahu rabbi basante doon li nga xamante ne suñu borom def na ci cuivre am na ci biir basante muy composant yi am na tamit potassium ak li nga xamante ne ñuy wax magnésium ak vitamine yu bëri bëri yoo xamante ne dañuy bëgg dawanteeg waxtu bi moo tax ñu koy tënk foofu waaye nañu xam ne vitamine yu yaatu mi ngi ci biir basante moom basante doon li nga xamante ne dina faj lu ñuy wax jaare muy biir buy daw ak ki nga xamante ne am na biiru tañ ni wala ki nga xamante ne am na feebar bi nga xamante ne dafa tooy ba lu mu lekk da koy wàccuwaat basante dina ko faj waaye bu boobaa du basante bi jëmm bi ci boppam légume bi waaye xobu basante bi garab bi xob bi moo koy faj ci kàttanu suñu borom naka nga koy def mooy da ngay jël xob bi xooj ko ak ndox di ko naan ki nga xam ne am na biiru tànc ak ki nga xamante ne am na biir buy daw mu am jaare bu koy koy defal bu ko koy defal mu koy naan maanaam biiru tàññ bi dina bàyyi ak li nga xamante ne li nga xamante ne muy maanaam biir buy daw muy jaare bi dina arrêté ci kàttanu suñu borom waaye bu boobaa balaa nga koy kii danga koy mélanger ay diir ndox bi ngay jël ak xobu basante bi nga jël ko mélanger ko après nga filtrer ndox bi di naan ndox bi ci kàttanu suñu borom di nga am jàmm ju bari incha allahu rabbi basante ni ngeen koy gisee noonu doon li nga xamante ne amul feebaru cancer bu mu mun a faj. surtout si jigéen yi nga xamante ne jamono bi li leen sonal mooy cancer du sein mooy cancer yi nga xamante ne si weenu jigéen lay jóge muy cancer bi nga xamante ne faat na jigéen yu bëri si àdduna muy cancer bi nga xamante ne traitement bi sax dafa cher dafa metti trop macha allah yàlla ñu si yàlla musal te képp ku ko am jàngaro boobu yàlla na la ko yàlla teggil si barkeb Serigne Touba. moom Batanse dina ko faj Basante dina ko faj si lu bëri bëri naka jël di dina ko faj ba pare dala si protéger bu fekkee danga nga koy jëfandikoo dalay protéger si feebar yooyu yëpp boo koy jëfandikoo dina la protéger si feebar yooyu yëpp macha allah muy cancer bu mu mun a doon cancer bu mu mun a doon bu dee góor cancer prostate moo gën a sonal góor yi bu dee jigéen cancer du sein moo leen gën a sonal léegi li ñuy def lenn kepp la mooy dañuy jël euh, basante bi nga xolli ko boo ko xolliwee doom bi nga xolli ko tranché ko ay tranche nga jël ndox def ko ci teg ko sa casserole baxal ko ba mu bax boo ko baxalee ba mu bax nga daal di segg ndox bi boo seggee ndox bi nga bàyyi ba mu sedd nga segg ndox bi boo seggee ndox bi nga koy naan di ko faral di naan dina la protéger ci feebar yépp muy cancer bu mu mun a doon incha allahu rabbi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ba léegi rek euh, Basante doon na. légume bi nga xamante ne maanaam dina wàccee suukaru doomu aadama bi nga xam ne dafa am feebaru jabet naka la koy jëfandikoo muy jabet bi nga xam ne mooy gën a metti sax muy jabet type 2 bi jabet type 2 bi bu koy jëfandikoo ci kàttanu suñu borom dina ci am tawféex ci kàttanu suñu borom ba nga xamante ne suukaram dina nekk à niveau normal ñu bàyyi ci xel bu baax a baax maanaam da koy xolli ñu ko koy baxalal mu koy lekk noonu ñu xar ko ci digg bi baxal ko bu ko defee après nga koy lekk noonu niñ ko xaree nga koy lekk noonu dina wàccee sa suukar ba mu nekk à niveau normal ba léegi rek ci ki nga xam ne am na anémie anémie mooy ku manqué deret wala manqué appétit doon koo xam ne maanaam dafa doon koo xam ne day miir di daanu kooku tamit nay faral di lekk batante dina ko basante bi dina yokk deretam ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi ah, dina ko dimbali ba mu day dindi fatiguement tamit nañ ci bàyyi xel. day dindi fatiguement baxal bi ñu la koy baxalal di la ko tegal nga koy lekk noonu surtout nga koy boo ñu baxal ko xolli ko baxal ko ba mu bax jël ko ndox bu tàng beeg yooyu nag ñu siimal la ko cere euh, basante bi nga jël ko teg ko ci kaw cere bi boole kook moom di ko lekk day dindi fatiguement day dindi anémie ba pare tamit da lay dimbali ci mal bopp buy metti beeg yooyu yëpp da koy dindi ak tamit maanaam dépression muy déprimé yëpp da koy dindi ci kàttanu suñu borom. Euh, ba léegi rek doon na li nga xamante ne moom basante dina ko muccale doomu aadama muy maanaam lu jëm ci mbirum cholestérol cholestérol muy graisse bu bëri ci yaramu doomu aadama ba nga xamante ne yaram bi daf koy xaw a sonal nay faral di lekk batan euh, basante bu bëri dina ko dimbali ba nga xamante ne dina dindi cholestérol bi nekk ci yaramam bi yëpp da koy baxal di ko lekk incha allahu rabbi dina ko dimbali ci kàttanu suñu borom ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ba léegi rek ñu wéyal ak yéen ba léegi rek ci basante bi basante bi doon na loo xamante ne day dëgëral sidditu doomu aadama day dëgë dëgëral sidditu doomu aadama ak ñi xam ñi am hypotension ak hypertension ñi am hypotension nañ koy jëfandikoo ñu leen koy baxalal ñu koy lekk ak tamit